ñoo ngi leen di siyaar bu baax te di leen jéggulu Saxum Touba TV seetu bu murit yi ñu fii ci màggal gi nga xam ne mooy màggalug Daaru Muxti màggalug Maam Cerno Mbàkke ñëwoon tey ci ci kër sëñ Modou leen fi Saxum Touba tey ji ànd ak yéen mbooleem li nga xam ne mooy màggal gi lépp fas yéene ko ànd ak fii ci kër sëñ Modou Mbàkke ñëw fi tey fekk fi ki nga xam ne moo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci turu sëriñ Moodu Mbàkke mu soxna mooy Mbàkke mu sëriñ Saaliwu Mbàkke mu Xaadimu Rasuul ci turu sëriñ Moodu Mbàkke mu sëriñ Moustapha Absa mu sëriñ Moodu Awa Balla mu sëriñ Moodu Awa Balla mu sëriñ Maam Cerno mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant te di leen teewaay bi ak takku gi ak bennoo gi ak liggéey bi liggéey bi lépp jëm ci lu yëwénal bis bi te lu yëwénal bis bi mooy luy ñëwénal suñu mbir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du wax ne waaye inde sikru saalihiina tanzilu rahma gaa yu baax yi fu leen di waxtaanee rek eh, ngërëmal yàlla dafay daal di kon yàlla na yàlla daf jotaay bi muy jotaay bu yaatu bu yërëma yërëma yàlla di tisaaroo ak ngërëmam di njokk di njokkal bu baax bokk ci li fi daje di leen sant ci turu sëñ Modou Mbacke di leen xamal ne xolam sedd na guy ci yéen xelam yi dal na ci yéen lii alxuraan bi muy wax di joxe melu waa àjjana dani ixwaanan alaa sururin mutaqaabiliina laa yamassuhum fiihaa nasabun wa maa hum minhaa bi mukhrajiin ay mbokk la doon euh, ay frère la doon yoo xam ne dañuy ànd ci mbégte te duutuñu lottu duutuñu tawat te duñ génn te àjjana dellu wax ne alhamdulilah li asabaxanaa xas na inna rabbana al xabur sagurun eh, xas na boobu ñu ngi koy firee njàqare lay firi waaye dañuy dañ koy firee ne eh, dépasse wàcc nañu ndax ajja ndax iblis bi ko bi yàlla bindee doomu aadama tëral ko ci buntu àjjana ñuy dem di romb di ko romb di ma ko ñëw iblis dafa ñëw fab loo xam teg ko ci jum eh, biir bi mooy jumbux daal ni ah man xuma lu mu doon waaye lu mu mën a doon yàlla na namal na ko ab cooran ndax xam ne ne am la moom am na lu fa war a dugg kon xasana boobu moom la ñuy wax dépasse sëñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi te it boo xoolee yoonu murit seen barke ak seen i wërsëg ak seen fan wu gudd ak bëgg gi nga xam ne ci lañ bëgg sëñ Tuubaa ah, te yàlla de taxawal leen ci seen mbir mooy lii ndax képp koo xamante ni jóg na ah, ci faj it it doomu aadama yàlla dana la wuute ci say ah, it faj ko ci addis boobu muy wax. Ah, te day mel ni taalibe boo gis sëriñam jag moo ko gënal moom mu jag su ko defee nag moom bu defee la man ba noppi la mënul nag yàlla moo koy woote ci ginnaawam faj aajoom te man ñii wax ak yéen doy doy naa ci seere dafa mos a am koo xamante ni dama ko amee leen trois cent cinquante mille jox ko bis ba bis bi jotee ba ba ba toog sant di waaj jot benn dërëm ne ko sumay ci ay ci poos bi bi bi mu daataa mat euh, euh, ñaar waxtu dajale naa fi téeméeri junni bu mu ñëwee ma jox ko trois cent cinquante mille am dese fanweeri junni kon loolu xamee nañ nañ ci Sëriñ Tuubaa moo sotti eh, kon jug gi ngeen di jóg di ko jéem a liggéey di ko jéem liggéeyal ak di jéem a sàkku ngërëmam loolu lépp pajog aaji la tey ak ëllëg ak ëllëg ndax moom wax na ne waq di xawaa ijël si ne daamoo fi xidmati wa habluhu maarooma yow suñu borom na nga faj aaju képp ku jóg di ma eh, liggéeyal te lépp lu soxla na ko faj kon eh, loolu dugg nañ ci dugg ngeen ci te it boo ko xoolee mu la ko tàmbalee ci ñin ñii ba ci suñuy baay ba ci suñuy maam ñëpp dañoo toppoon suñ Tuubaa di ko liggéeyal mu nekk caay kàll goo xamante ni du dog mukk te boo xoolee ñooñ it mooy ñi nga xamante ni eh, allisini jaay doon fii fii sabilillahi ba ambali waan fi ñi nga xam ne dañoo jihaad eh, eh, ci yoonu yàlla ci seen alal ak seen bakkan inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fii sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna bu ñu reyee ak bu ñu leen reyee lépp wax dëgg yàlla xaqan fi tawreet seen seen rajo mooy mooy kon nag ñu leen sant bu baax te di leen gërëm di sant sëñ mu du baax te di ko ñaana yàlla fan wu gudd ak wér gu yaram te defal ko soxna moom mi Mbàkke te sa sëñ Moustapha Absa ak sëñ Modou Awa Ball ak njabootu maam Thierno gépp yàlla tàmp tàmp leen ci yërmandeem ju kawam ja ci barke yonent bi sallallahu ñu sant jëwriñ bu baax sëñ Moustapha ak sëñ Moustapha Jaxate ñoom di sant sëñ bi bu baax kon euh, mbokki jullit yi mbokki taal bi mu amoon kàddu yoo xamante ne dañ ko doon jotli ci turu sëñ Modou fii ci këram gi nekk ci busra ah, busra xam nga mooy mbégte kon eh, tur yi yàlla bi nuyu wuyu borom bi ni allasina amanu wa amalu saalihaati tuuba lahum husna maabin kon busra yi mooy mooy mooy mooy loolu rek ñi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen xamal ne nag kon liggéey bi ubbiku na dañ koy yendoo fanaan ko ba suba ca eh, ba simbi yeewee rek lépp yàlla ko yalla def ay xéewal te nangu ko te bu ko nangoo jàng fi alxuraan ju ju Eh, jàng nañ fi alxuraan ju sell jàng nañ fi ay xasaayit benn yaa ngi benn yaa ngi ñi sant Diané ñi sant eh, Mbay ñëpp ñu bég nañ ñu ngi koy continuer ñi leen di sant bu baax te di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wo barakaatu. ah man de sëñ bi dama def loolu loo xam ne nii xam naa ne sax ah bëriwul sax lu moo koy def waaye nag eh, ndigal moom jëfee rek te bisu maam Thierno bi moom yaakaar naa maanaam sànni ci ay kàddu maanaam mënut a ñàkk. tax te itam lu lu lu jafe la waaye lu yomb la itam waaye nag ma ma li la xamal ne it fii li tax ma sawar fi moom mii de sama wóllëre la moom sëñ Modou Mbacké mii sama jarbaat bu sant bu sa moomu boole woon ak moom nu ànd ma di ko jàppale ci liggéey bi muy liggéey fii di liggéeyal maam Thierno ak ak ak ak li muy liggéeyal Serigne Touba lépp ma di ko ci jàppale. kon loolu moom yaakaar naa bu ma joxee ndigal na ma euh, fok nga sànni ci kàddu danaa ko ci sànni ndax sama sama waajur góor di fii la ganee adduna man nag sa sa euh, sëñ moom sëñ Fallu mooy sama wasila waaye nag euh, moom sa Daaru Musti moom dama ko sopp sopp goo xam ne ni heure bu ma fi jubloo rek maanaam maanaam sama sama sama sama sama xol ak sama xol lépp rek dama koy dama dama dama dama ko dama ko dama ko cee def moo tax nag bu ma joxee ndigal na ma fokk nga sànni ci kàddu ah ma sànni ci ay kàddu ndax ma ko sax nag waaye nag waaye nag ma ma ma may sant eh, eh, sëñ Mawud mi nga xam ne moom moom lañ ma booleel muy sama wëllëree te boobu ba eh, ah, ah, nangami at nu nu du ko jëflante ci ab liggéey kon loola maa ngi ci sant yàlla bu baax di ko ñaanal nag moom itam fan wu gudd ànd ak wér te ba lépp lu mu bëgg a maam ma ma sëñ Touba ak maam Thierno sans borom ba defal ko ci ba defal ko ci lu kawe njort te bi yi nga xam ne ñoom ñoom la ñoom la ci àndal itam may ñaan itam taalib yi yàlla na leen saa ma defal fan wu gudd ànd ko wér ak wërsëg boo xam ne nii danañ man di liggéey di joxe addiya loolu it ndax ab taalib bi moom joxe addiya rek moo ko war kon nag noo ngi sàkku uh, di ñaan uh, sëñ Mouride yow itam nga ñaanal nu ñaanal taalib bi yëpp ba li nga xam ne bëgg nañ koo liggéeyal maam na ak Serigne Touba maanaam euh, ñu defal leen ba defal leen si seen euh, lu kawe seen jot di di di sant yàlla nag di di la ñaanal bu baax nag fan wu wànd ak wér. Mm, jërëjëf. bisub màggalu borom daaru gi euh, ñun nag mm, wal du tey bu yaxruju nabaatuhu ñun sunu gàncax mooy sëñ Modou Awa Balla ndax comme yàlla moo ko waxee noonu ñun sëñ moodu mooy sunu borom daaru. Eh, di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko umran tawilan ma siha kaamila li li li tatmimi niyati fi xidmatil xadim loolu loolu lañ koy ñaanal di ñaan yàlla suñu borom eh, jëmm ji ñëw ci bis bi rek loo fi doon sàkku yàlla defal la ko te yàlla def ci réew mi jàmm ndax bala nga ni naam nekk nekk fa ni ko olof waxee te réew mi jaxasoo na bon nag yal yàlla defal jàmm yàlla def ci réew mi jàmm ndax Sénégal moom jàmm doo nga fi xaj ñaan daal ci barke borom daaru ak jaayante gim jaayante ak Sëñ nga xam ni nee nañu musu koo wor ci ndawam ba ci magam nga xam ni murit yëpp taalubéy daaru mu si lan ndax borom daaru la leen euh, ku tedd ki dénkoon te laajaatu ko ko benn yoon bon ñun ñëpp taalubéy borom daaru lan bon ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb xaadim rasul barkeb borom daaru barkeb sëñ aw Awa Balla nu yaakaar lu fi waay wutsi yàlla na nga ko am képp ko feebar yàlla na la ko yàlla fajal képp ku am soxlaat yàlla na la ko yàlla fajal ci barkeb sëñ Modou aw Balla moom soxna mooy moom suñ moom sëñ Saliou Mbacke mi nga xam ne ñun mooy suñu bunt ci xaadim rasul yéen nag ñu ngi leen sant di leen gërëm ci jottali bi jottali bi ngeen def moom lu yàlla bëgg la wa ma alayna illa al balaaxul mubin bon nag yéen ngi jot leen ndax lii lu am solo bon nag yàlla neen yàlla fay guddal seeni i fay fay seen i njiitit waaw ci barkab xaadim rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sukran salaamaaleykum wa rahmatullah leen nuyu yéen ñëpp leen siyaara suñuy tànk weesuwul ñëw fet li ko ak jokk bokk ndax sëñ bi moom Tuubaa ñoo dëkk maag moom suñuy kër soriwul ni ma koy nemmi ko la may nemmi ko teet loolu yëpp bokk gee ko jiitu wax dëgg yàlla te la ci wàllam lépp rafetal na ko moom ay mbagam ak ñi ma ko seqal ñëpp ci dëkk bi wax dëgg yàlla loolu mooy suñu tànk war a saa buñ saa bis bu jotee ci bàyyi bu ñëwee agsi fii maslaa ak moom wan ko ne bis ñoo ko bokk moo tax ñuy bàyyi suñu lépp ñëw fii daal sax suñu def ko waaw ñu ngi koy sant ci taxawaayam wax yàlla ndax it yàgg ko fekk ay at yu bari booba nekkagul fii mu nga lépp saa bu ñëwee yokkute lañ fi fekk rek moom la ñuy gis ci moom wax dëgg yàlla ak gën a yaatal taalibe Sëñ Tuubaa ak gën leen topp soo rek li li li Sëñ Tuubaa euh, ak sëñ maam Thierno amoon ci bis mi seen daje ga mbégte ma ci amoon daal wax dëgg yàlla saa su ne ñu ngi gis ma koy fàttali ci ay jëf ak ci ay wax ak ci lépp wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal yàlla na ko yàlla barkeel daal te yàggo fekk di ko tal yàgg fi fekkante suñu Tuubaa nangool ñu sunu tarbiya te nangool ñu mbooleem ñaan yeeg lépp ñu ci def ci lu baax rek barke sëñ Tuubaa jërëjëf saakumallaa jërëjëf jërëjëf barke salaamaaleykum wa rahmatullah ngi nuyu ci bis bi nga xam ne mooy bisub Cheikh Ibra Faty bi nga xam ne comme ni ko sëñ bi waxee rek sëñ Abou Mbacke moom sëriñ ni moom laay jiital ci ziar bi ak nuyoo bi ndax sama mag la sama sang sama lépp wax dëgg yàlla mm, yàlla def it maanaam nag mu féetu nu mag lool waaye gis nga ni mu woyofe ak baaxam gi rek nii lañ ko mas a xamee kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ci di am mbégte lool ci teew gi mu fi teew nii tey loolu doonul ne tey ji la ko tàmbali ba ko dalee def yàgg na baax loolu tam ittee ndax nit ku nekk li ñuy wax ne ñaari ñaari bis rek nga am bisum mbégte ak bisum naqar euh, ci bis yu mel noonu nag ci ngay xamee maanaam say nit ak say sopp ak say xarit waaye moom di wax dëgg yàlla euh, du ñu nekk ci menn biir te ànd ko gunóor nit mu mën a nekk rek wax dëgg yàlla moom moo fiy jiitu gis nga mbokk yi li ñu bari bari man na maa wax ne moom moo fiy njëkk a ñëw euh, te loolu muy lu dëggu ci moom kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal. yàlla ci barkeb Serigne Touba yàlla gën ko may mu yàgg fi lool yàlla defal ko wér defal ko xéwal yaatu yaatu sunu sang sunu xarit sunu lépp comme ni mu ko waxee rek noo bokk dëkk ca Touba sunuy kër ci Touba te soriwul waaw fii màggal bu ñëwee moom mm, nii la koy defee ngi koy sant bu baax a baax daal di sant bokk taalibe yëpp it ci teew gi ñu fi teew waaw ndax euh, lii rek mooy li am solo euh, sëriñ bi bi mu demee ci tukki boobu nga xam ne mooy tukki géej gi. Euh, ngir jariñ jëriñ mbindeef rek moo ko taxaw na dem lii kun bi kun sarmadan waccal masiri ya sa jawfal fara li wara mistalal maxaarini waaw kon loolu muy lu sakkan lu yaatu loo xam ne bëgg e, nit ñëpp maanaam ñu mën a jariñu ci loolu nga xam ne moom la doon liggéey ci tukkib géej gi loolu rek moo ko taxaw na dem wax nañ ne wax na maam Thierno ne ko <coughs> sun boroom xamal na ma ne ma e, lii ma la bàyyee woon maanaam nga yoral ma ko sama gannaaw amut amut amut amut kenn koo xam ne nii mas naa sàmmal nit lam ko lam ko bàyyee ci kémtulaay yow nii nii nga xam ne bàyyee naa la ko maanaam nga sàmmal ma ko nii ma ko sàmmalee daal amut kenn koo xam ne mas na mas nit la nga xam ne moom la ko bàyyee waaye man it indaaleel naa leen ci tukki bi ma tukki woon loo xam ne mbindeefum yàlla mosu tukki andil ko ñoom bàyyi ko naw waaw xam nga loolu kon lu rëy rëy la waaw moo tax nag kon ñu ci sant yàlla bu baax a baax ci lépp rek fekkaloo gi ko fekkaloo di sant mboolem taalib yëpp rek li leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéenay waa Saxum Touba te sëñ Moustapha Diakhaté nekk ci bopp ba yéen yàlla gën a barkeel seen seen bi defal leen tawfeex bu baax a baax moom daal am nañu mbégte lool ci teewaay bi am nañu mbégte ci taalib yëpp yal na yàlla def tawfeex képp ku fi teew rek yal na yàlla faj sa ko lu ñu fi jëf ci lu baax it yàlla nangu ko lu ñu fi jëf ci safaan yi suñu borom jégal na ko yàlla def a baax yaa xayu anta dul jalaali alwaasicu wa anta xasbiya falaa unaasicu yaa rabbi anta dul mixaali alwaaxidu wa anta xasbiya falaa ukaabidu yaa fardu anta dul cataaya almaajidu wa anta xasbiya falaa uxaasidu mawlaaya anta dul hadaaya annaaficu wa anta xasbiya falaa uqaaticu أنت الذي تولي محبي كهداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حمايا ليكن حصنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني wa kulli jabbaarin wa kulli jaani wa najjini yaa man taala yaa majiid min sharri jinnin maca shaytaanin mariid wa sharri dil qurbi wa sharri nnaa'i والحر والبرد وشر الماء وسود النية وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد wahab li alqiyaama fi llayaali walsawma fi nnahaari bilikmaali wa xalliyanniya min alradaaili wa kun mujammiliya bilfadaili wa zakki lubbii waftaxa rabbi liya fatxan mubiinan laa yuraa limithliya وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيهما لي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر ba léegi yéen a ngi ànd ak Saxum Touba TV seetu murid yi ñëwoon bii ci kër gi ci waañ wi nga xam ne ñoo ngi fa fekk benn jëw di sang bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakaatu. mel ne Saxum Touba TV ñoo fi ñëwoon tey ji ànd ak yéen ci màggal gi nga xam ne moom lañ ñëw ci kër sëñ Modou ana boo ñu doon wax tey ci waañ lan nga ñu di wax ak nan ngeen di doxee ci biir waañ waaw waañ wi de ànd nañ ceeg jëwriñ yu mag yi ñu boole pësëf bi yëpp ne ci liggéey ci waañ wi ndax sëñ bi lii rek la ñu fi indee ndax sëñ Moussa Xaadim Lam mooy jëwriñ ji jiital ñu ci xeebuñu ko ci benn yoon it ndax lépp dañoo bëgg bernde yi fi indi ñu teral ko togg ko ba mu jaar yoon jox ko gan ñi ñu xewloo ko loolu daal moom fi indi ci liggéeyam sëñ bi waaw. mu mel ne ay daayira ngeen daayira ay daayira ngeen ñaata daayira ngeen ndax ba xam seen sées fii la nekk ci Darou Mousty wala da ngeen fay def benn section boo xam da ngeen koy màggal. waaw daayira yu bari la daayira Kaolack ñëw na Ndar ñëw na ah, Kaffrine ñëw na Mbour ñëw na waa Touba ñëw na ñun ñun waa ñun ñooy waa Touba quoi sëñ ba. waaw. ana lan nga wax soxna yi ak suñ mbokki soxna yi ak suñ mbokki góor yàlla yi ñu seetaan. waaw maanaam ñu góorgóorlu rek te xam ne liggéey borom daaru bi moom loo ci def rek sa bopp nga ko defal di ñaan yàlla ñu yàgg koo def at yu bëree bëree bëree bëri yàgg di fi ñëw yéen itam ñu leen di ñaanal taxawaay bi rafet na tali bi gën a dem ca kaw ca kanam ñu leen di dégg fa ñu dégg yeneen tali yi ci barkeb boroom Tuubaa barkeb maam Thierno waaw. jërëjëf jërëjëf baay alhamdulillahi alkarim silmilan ala sirali bi furudin wa sunan sakartuhu li an qad saxani li watani bi nafa ma fani wa hadani